aywa 8h euh, jot na ba tegal ñaar fukki simili ak benn waxtu wi ñuy àddoo euh, mu mel ni Ndakaaru euh, taw bi. waaw tàmbali na El Hadj Daouda est-ce que ñëwut avant taw bi di sóob. <laughs> Daouda ñu ngi nuyu. Mm-hmm. di la nuyu di la ziare. di la déwénati. di la déwénati di la balu àq. balu àq sama naataangoo yi ma fekk. di balu àq téléspectateurs yi. di leen baal àq. Eh, di ñaan yàlla yàlla ma ñu gudd fan ak wér gu yaram. amiin yaa rabbi jàmm suñu réew. amiin yaa rabbi jërëjëf El Hadj Daouda ameloo kenn ak ñal na mm. yàlla nangu ñaan yëpp. ni ñu ko waxee taw bi Chérif kon euh, tàmbali na fii ci Ndakaaru muy xibaar boo xam ne. Euh, ANACIM moo ko seen page bi laa doon xool ñu ne orage pluie vent assez fort attendu cette matinée niveau de la capitale sénégalaise. Mm. Mm-hmm. kon mu mel ni taw bi la ñuy euh, may noonu. Ah, jamono jii kay nee nañu Ndakaaru mi sotti yàlla na nekk ndoxu jàmm ak salaam nawetu jàmm moom la ñuy ñaanal euh, ñëpp aywa nag ñu soobu ci jàngat bi jàngat bi nag ni ñu koy defee altine bu jot mu jëm ci wàllu euh, yoon euh, ñu ci ànd ak suñu spécialiste bi di Daouda Mine ñu wax rek ci mbiram Sweet Beauté décision de justice bi nag mu mel ne dañu koo fësal maanaam euh, rendre public et après donc muy question boo xam ne laaj la bu daaw de samp waaw parce que semaine passée lañ gis ni génn na comme le premier la atte bi joxoon attekat bi joxoon verdict bu chambre criminelle bi ñu ngi ko doon xaar nag euh, bu génnee ak ban njeexital lay am euh, bi nga liiree li nga xamante ni mooy dogal bi déjà premier commentaire ci fond bi. waaw waaw boo premier commentaire biñ ci bi biñ ci def. moo di juge bi ci li nga xamante ne moom la expliqué dafay expliqué nan la jóge ci délit de viol bi nga xamante ne infraction de viol bi nga xamante ne moom lañ doon toppee Ousmane Sonko ba wàcc ci li ñuy woowee corruption de de la jeunesse donc boo xoolee jugement bi c'est cinq pages bu nga xamante ne a beaucoup de rappel de fait. bu nga xamante ne moom moo amoon ci enquête préliminaire bi moo amoon ci cabinet d' bi moo amoon également ci jour bi nga xamante ne jugement bi am na. Hmm. mais juge bi li mu jàpp moo di effectivement y' a eu conjonction sexuelle entre euh, Ousmane Sonko ak euh, ak ak Ndeye ak. Euh, Adji Sarr loolu la retenir en en dernier ressort. seq nañ ci lim ko ci lim ko basé moom mooy euh, man yu bu nga xamante ne prélevé nañ ko ci mm-hmm. euh, euh, aji Sarr mm-hmm. et que moom li mu jàpp que ni instant bi nga xamante ne prélevé nañ man yu bu nekkoon ci aji Sarr mm-hmm. ba moment bi nga xamante ne juge bi di ko di ko kii bi di ko consulter gynécologue bi di ko di ko di ko di ko consulter Adji Sarr gisu fa kenn ku dul Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko la nekkoon en contact ak ki nga xamante moom moo ko jëloon yóbbu ko ci al Alfousseyni Gaye ak Alfousseyni Gaye bi nga xamante ne daf ko consulter. donc euh, lim ci basé mooy loolu noonu le fait que Ousmane Sonko également bañ def test ADN loolu dafay accréditer la thèse selon laquelle loolu nga xamante ne fekk nañ ko ci euh, Adji Raby Sarr ci moom la jóge donc ci loolu la basé wu pour wax ni conjonction sexuelle am na ci loolu la basé wu maintenant dafa jàpp ni même bu fekkee ne conjonction sexuelle am na conjonction consentie la parce que menace yi nga xamante moom la ndaw si doon wax amul lenn lu nga xamante ne daf koy firndeel euh, contrainte bi nga xamante ne élément constitutif du viol la également amul lenn lu koy firndeel violence bi nga xam ne élément constitutif du viol la également amul lenn lu koy firndeel donc hmm. jàpp na ni bu même bu fekkee ni euh, conjonction sexuelle am na euh, ba muy am dafa nekkoon lu nga xamante ne Adji Raby Sarr ci d' accord oon mhm. maintenant nag ci li mu basé wu mooy même bu fekkee ni d' na ci Adji Raby Sarr nekkoon na ko nga xamante ne elle était âgée de moins de vingt et un ans et par conséquent le fait ko moom chaque fois mu fay dem xam nga di séq ak moom yenn yi di ko initier sur un certain nombre de choses pour xale bu nga xam amagul vingt et un vingt et un ans dafa nekk lu nga xamante ne c'est réprimé par l' article 324 bi nga xamante ne moom mooy daan li ñuy woowe attentat à la par corruption de jeunesse mu basé wu ci loolu nag pour condamner ko à deux ans de prison sur la base de cette infraction. raison la joxe ci ñu jóge ci viol bi nga xam ne disqualifié nañ ko dem ci justement corruption. waaw mooy mooy mooy mooy li ma parce que il bu bi mu demee ba établir que ni conjonction bi am na conjonction sexuelle bi am na et que. Ah, kenn laam-laamewul que ni dem na fa plusieurs fois et chaque fois bu ma saan dem également Adji Raby Sarr moom moo ko daan euh, jël en charge témoignage yu bëri euh, firndeel nañ ko muy benn bu nga xamante ne euh, Ndeye Khady Ndiaye en personne firndeel na ko Adji Raby Sarr mu ngi ci boppam firndeel na ko benn masseuse bu nga xamante ne mu ngi fa woon bu ñu auditionné également firndeel nañ ko jëkkëru euh, Ndeye Khady Ndiaye également firndeel na ko donc li mu jàpp que ni à plusieurs reprises mm-hmm. moom dem na fa à plusieurs reprises Adji Raby moom moo ko doon moom moo ko doon prendre en charge à plusieurs reprises également juge bi jàpp na ni séq am na parce que même le certificat médical le le rapport bu bu docteur Alfousseyni Gaye mhm. li nga xamante ne dafa wax ne y a na euh, nan laa koy wax sax. Euh, euh, destruction. non non non y' a y' a y' a y' a y' a y' a eu des lésions. voilà mm-hmm. des lésions anciennes. Mm-hmm. yu nga xamante ne sur 3H mm-hmm. 7 euh, sur 3 heures 12 heures et 11 heures. loolu dafay wan ni y' a eu au moins lu mu dee dee dee ñetti ñetti ñetti rapport sexuel yu nga xamante ne dafa jàpp ni loolu mun na ko imputer ki nga xamante ne moom mooy moom mooy Ousmane Sonko. donc li mu jàpp mooy. Ousmane Sonko ci boppam daan na fa dem. te la mu fa daan dem également yàq na xale bu jigéen bu nga xamante ne. amagul 21 ans ci loolu la basé wu ci jugement solution lu tax ñu ci ñëwaat euh, Daouda mooy euh, dañu bëggoon taxawaat ci li ministre bi waxoon. le ministre de la justice muy Ismaïla Madior Fall. dañu woon bu fekkee décision de justice bi génn na. soit euh, Ousmane Sonko day constitué wu prisonnier. wala parquet bi jël décision dem jàpp ko. ba léegi nag dara amul est-ce voilà qu'est-ce qui est à l'origine parce que dañ doon wax. Euh, l'arrestation imminente de Ousmane Sonko. Mm-hmm. mais loolu est-ce que xelu nit ñi mën na ci leer tuuti. waaw. en fait même boo déggee démb Ousmane Sonko bi mu def bi mu génnee déclaration. Mhm. yaa ngi ko dégg mu ngi mu ngi cité benn article trois cent quarante et un du code de procédure pénale bon foofu noonu am na sax lu nga xamante war nañ ko ci leeral parce que article trois cent quarante et boo xoolee dafa am ñaari modification moo xam dafa am ci code de procédure pénale article 341 boobu mooy modification bi nga xamante c'était en 2014 la loi 2014 28 mais am na benn modification bu nga xamante ni dafa am en 2016 muy la loi 2016 30. Mhm. mais si modification boobu article 341 boobu nga xamante mi ngi ko doon cité. Mhm. léegi c'est devenu l'article 307 mais la muy wax benn la. Mhm. donc article boobu nag lu mu wax daf ne ki nga xamante ne dañ ko jugé par contumace. dañ ko jugé par contumace jugé nañ ko pour un crime te teewut ñu condamné ko ci su fekkee ni dañ ko jàpp. wala bu fekkee ne constitué na prisonnier à partir de ce moment là jugement bi nga xamante ne condamnation bi nga xamante ne gàllu nañ ci kawam dafay anéantir dañ koy jugé waat loolu la article boobu wax. maintenant difficulté bi nga xamante ne dafa am fii dans cette affaire moo di y a deux étapes yu nga xamante ne dañ ko romb amoon ay act yu nga xamante dañ ko waroon def defuñu ko. premier bi moom mooy lan. boo jëlee l' article 238 du du du code de procédure pénale daf ne ki nga xamante ne mosuñu ko arrêté wala dañ ko joxoon liberté provisoire au moins la veille jugement bi dafa war a ñëw ci audience d'identification su fekkee ni teewul dañuy exécuter li ñuy woy ordonnance de prise de corps parce que boo jëlee décision bi nga xamante moom la doyen de juges jël renvoyé ko devant la chambre criminelle nekkul rek ordonnance de renvoi ordonnance de prise de corps la et de renvoi devant la juridiction de jugement. Mm-hmm. donc ordonnance de prise de corps mooy nit ki dañ koy téye yóbbu ko. xam nga ci prison lay jógee ñu ñoo jugé ko mais foofu article 238 daf ne woon léegi bu fekkee ne dafa ñëw coobare boppam jarul ñu exécuter ordonnance de prise de corps bi mais bu ñëwul coobare boppam le président de la chambre criminelle dafa war a exécuter ordonnance de prise de corps boobu ce qui n'a parce que au moment où urgence d'identification Ousmane Sonko mm-hmm. kenn kenn kenn exécuté wul ordonnance de prise de corps boobu beneen bi mooy ñëwul jugé nañ ko jour bi ñu ko jugé ba pare condamné ko à part de ce moment là le juge ki nga xamante moom moo moom moo doon def déci moom moo doon def jugement bi aurait pu prendre deux décisions Ndeye Khady Ndiaye bi nga xamante ne mi ngi teewoon mënoon na def mandat dépôt à part de ce moment là doon nañ ko yóbbu prison mm-hmm. Ousmane Sonko bi nga xamante ne également nekk foon mënoon na def li ñuy woowee mandat d'arrêt à part de ce moment là mënoon nañ sur la base de ce jugement là mun ko jàpp mais loolu yëpp amu ci maintenant situation bi ñu nekk nii. il revient effectivement comme ni nga ko waxee comme ni ko ministre bi doon waxee il revient au parquet au procureur de la mm-hmm. république mm-hmm. d'exécuter la décision mm-hmm. mooy dégg nañ sax le ministre dire que jugement bi moo génnagul loolu moo tax euh, mënuñu exécuter décision bi alors que en matière euh, véritablement de de chambre criminelle on n'avait pas besoin d'attendre que même ce jugement jugement bi di génn est-ce yoon Euh, euh, am na ci yoon lu mën a wane par exemple ne nit mën nañ ko daan comme ni Ousmane Sonko. Mm. doo dem kaso nga tëdd ñaari at mais nga nekk ñu lay surveiller parce que li ñu gis moom mooy bi euh, layo bi àggee ba léegi Ousmane Sonko dañ ko teg këram. Mm-hmm. teg ak ate fa ay barricade mm-hmm. gars yi mënuñu dem mënuñu dikk. Mm-hmm. est-ce que ci yoon. am na luy wane ne nit mën nañ laa daan liñ ko daan après nga toog ñu lay surveiller. waa le fait que ñëw ñu bàyyi ko këram. Mhm. Euh, barricade ko noonu. Mhm. Euh, amul benn décision de justice bu nga xam ne moo ko moom moo ko moom moo ko décidé. Mhm. du yoon donc ni sur le plan administratif ni sur le plan sur le plan nan laa koy wax sax sur le plan juridique. parce que bu fekkoon ne da ne da ngay jël par exemple une mesure euh, à titre préventif parce que dañuy bañ trouble à l'ordre bu boobaa préfet bu fekkee ne jël na décision bi war na jël. war na ko ko notifier ñu mën a xamante ne kii kat dañ ko barricade parce que bëggul ñëw bu fekkee ne moom bëgg na attaquer la décision mhm. moom mu attaquer ko devant la chambre criminelle la devant la chambre administrative de la cour suprême mhm. bu fekkee décision de justice effectivement mën na am décision de justice juge bi ne ok condamné naa la deux ans mhm. mais deux ans yi doo dem kaso dama lay bàyyi en résidence surveillée sa kër mais loolu jugement lay doon mais bi nga xamante ne moom moo wàcc Ousmane Sonko c'est pas un jugement bu nga xamante ne dañ ne résidence surveillée mhm. c'est une condamnation à deux ans de prison ferme mhm. à part du moment où mu nekk une condamnation à deux ans de prison ferme euh, condamnation xam nga mi ngi ko war a purger euh, na la def dans une maison d'arrêt et de correction ou bien dans une maison de correction mhm. ou bien dans un camp pénal foofu la ko foofu la ko mën a mën mën mën a mën a mën a kuyee donc situation bi ñu nekk ni moom mooy nekk lu nga xamante ne dans tous les cas avant la prescription prescription bi comme ni ko comme ni ko boobu waxee daf ne bu fekkee ne arrêté nañ ko wala constitué na prisonnier avant que prescription di am bu boobaa dañ koy jugé waat donc exécution de la décision avant le délai de prescription war nañ ko def te délai de prescription en matière de délit article 722 du code de procédure pénale def na 5 ans la donc tey jii procureur bi dans tous les cas dans tous les cas fii ak de prescription bi di am war na exécuter la décision te bés bés bu ñu ko exécuté jour bañ ko téyee à part de ce moment là Ousmane Sonko a 10 jours pour acquiescer de la décision en disant que je suis d'accord sur jugement bi wala je suis pas d'accord s'il n'est pas d'accord on sera dans l'obligation de prévoir un autre procès jugé waat ko. Mhm. justement foofu noonu moom mi ngi wax ni que considéré wul waxam ku nekk en contumace parce que déjà euh, chambre criminelle affaire yi fay dañ ko requalifier. Euh, yóbbu ko corruption de jeunesse ça veut dire que moom néew chambre criminelle moom moo ko condamné. la ah, chambre criminelle moo ko condamné. non mais plutôt en correctionnel peut dafa yóbbu kii dafa dem correctionnel mais euh, ko liñ mais bu ñuy wax par exemple contumace par rapport à la juridiction du jugement c'est la chambre criminelle bi nga xamante ne dafa am la possibilité euh, article 294 dafa am moom du code de procédure pénale daf ne dafa am la possibilité de condamner à des peines criminelles mais également de condamner à des peines correctionnelles chambre criminelle tey jii képp ku nga xamante ne war nañ la juger foofu ñëwuloo xam nga tu es par contumace mm. képp ku ñu condamné également te nekkuloo fa woon également tu condamné par contumace mm. et par conséquent les dispositions yi nga xamante ne moom mooy concerne le contumace xam nga dalay concerner mm. la preuve la preuve au moment où je te parle Ousmane Sonko n'a pas la possibilité de faire un appel Ndeye Khady Ndiaye def na appel Euh, Ali Rabi Sarr def na appel mais Ousmane Sonko mënul def appel parce que il est considéré comme contumax. Hmm. article 313 du code de procédure dit que le l'appel n'est pas ouvert au contumax. malgré la requalification. malgré la disqualification la la disqualification des faits jële ko par exemple ci euh, viol indi ko kii malgré tout cela c'est l'état de contumace moom foofu loolu lool loolu la il n'est pas il est jugé dans une juridiction criminelle il n'était pas présent il a été condamné par contumace et par conséquent toutes les conséquences yi nga xam ne mooy concerné le contumace daf koy daf koy daf koy concerné donc tey ji mënul def appel tout ce qui tout ce qui peut être fait mooy mu dem constituer prisonnier wala ñu jàpp ko à partir de ce moment là ñu jugé ñu jugé waat ko jugement bu bees Mm-hmm. man nag bëggoon naa ñëw ci yéexaay bi nii parce que même si le ministre comme ni ko Mor l'a rappelé ci wàllu jële gi. Mm-hmm. situation moom day continuer wala finalement kan mooy jël responsabilité su fekkente ne jàppoon na ci am def. waaw mais mais euh, Chérif la responsabilité incombe a l'État du Sénégal. Mm-hmm. la responsabilité incombe au procureur de la République. dans l'affaire Ousmane Sonko il y a beaucoup de choses qui ont été qui ont été faites yu nga xamante disons la qui ne sont pas véritablement conformes au texte. voilà man boobu waxuma amul de. dëgg yàlla waxuma ne amul. mais c'est la première fois. ma gis kenn koo xam ne inculpé nañ ko pour un crime place ko sous contrôle judiciaire. waaw ah. la première fois. Mm-hmm. moo tax ma doon laaj ndax est-ce que yoon. voilà man mosuma ko gis. voilà le viol a été criminalisé en 2020. Mm-hmm. mosuma gis ku ñu ku ñu inculpé pour une infraction qualifiée crime. placé le sous contrôle judiciaire donc Ousmane Sonko jàpp naa ni kon bu dul exception ci exception yi la. voilà euh, beneen bi également moom sa démb wax na ko tey jii ki nga xamante ne dañ lay juger par contumace mooy koo xamante ne wër nañ la gisuñu la. Hmm, xamul foo mais ñu xam fi nga nekk ñu xamante ne yaa ngi fii xam nga ñu ñu ñu ñu war la mën jëli jëli jëli jëliwuñ la ñu juge la par contumace on n'a pas de voir la même boo xoolee par exemple code de procédure Euh, yi nga xamante ne daf ko def muy les formalité de publicité yi nga xamante ne dañ ko prévoir après la condamnation par contumace daf lay wan carrément mooy ku nga xamante ne xamuñu fu mu nekk parce que dañ lay wan ne après la condamnation de contumace décision bu génnee le procureur de la république dafa am obligation placarder la décision ci dernier domicile connu du contumace xam nga dafa am obligation également mais sa mairie ba nga xamante ne foofu nga foofu nga cosaanoo ñu placarder placarder ba décision bi dañu am obligation également ci benn journal de la place ñu daal di euh, publier la décision de de de justice à partir de ces formalités de publicité la xam nga lépp lu nga xamante ne la en ce qui concerne les déchéances et consorts dafay commencer entrer en vigueur. mais daaw da fi ñuy fi jugé par par baal ma est-ce que ñoom ñëpp noonu lay demee parce que chaque jour yow yàgg nga dem palais de justice ñu àtte fa nit ne jugé nañ ko euh, journaux yi def rek en ne diw dañ ko jugé tëj ko 20 ans par contumace ko mais est-ce que décision yi yooyu yëpp. danañ ko moom mhm. par exemple pour exécuter ki dafa nekk en campagne wala ñu jox ko la police bu fekkee nit ki dafa nekk en ville lu ci bëri sax c' est la exécute cette décision là parce que chambre criminelle lu ci bëri c' est la compétente la gendarmerie mhm. la jox de prise de corps ñëw ne à telle personne dañ ko joxoon liberté provisoire dem leen ngeen jëli ko mhm. ñu dem foofu fekkuñu ko fa ñu wër ko wër gisuñu ko mhm. ñu ñëw ci juge bi kat ñu ne ah kii kat demoon nañ pour exécuter

Euh, si bu buñ ko jàppee ce sera pas le fait du procureur s'il s'il est arrêté ce sera pas le fait du procureur mais ce sera le fait de Macky Sall est-ce que loolu également il se prépare pas à une éventualité ñu jàpp ko par exemple non non mais ce que c'est pas une lecture même boo ko gisee nu mu waxee nu mu waxee dem il a convoqué l'article 341 bi mu la bi mu la wax noonu moom laa la wax léegi c'est changé c'est devenu l'article 307 loolu la wax Ousmane Sonko ci boppam xam na ne pour que décision bi nga xamante moom lañ ko condamné dans l' affaire Adji Sarr pour que décision boobu dañ il faut que ñu ñu téye ko mën ko jugé waat. moom xam na loolu. et il l'a dit hier maintenant son problème mooy ndax buñ ko téyee ndax dina fa yàgg wala du fa yàgg. parce que il dit que. man bu ñu ma téyee voilà huit heures dix heures war na maa fekkaat sama kër donc leventualité éventualité de l' arrestation moom si boobu mu intégré na ko parce que xam na ni loolu mooy procédure bi hmm. est-ce que bu buñ ko arrêté deux heures temps la fay def un jour la fay def dix jours la fay def vingt jours la fay def nangam ak nangam ça c'est la question voilà c'est la question parce que tey li muy wax naan bu ñu ma arrêté Macky Macky Macky Sall il est en train de politiser le dossier bon c'est vrai que le procureur c'est le pendant de l'exécutif le procureur buy jël yenn décision yenn c'est sûr que son ministre de la justice sera sera au courant et le ministre de la justice forcément il va il mais toujours est les actes de procédure yi nga xamante ni dañ koy jël il reviendra au procureur de la République. Mm-hmm. xam nga de les prendre. kon du juge bi quoi. Ah, Brandy non non non non non actuellement juge bi pare na ci. juge bi jël na décision ba pare génne na décision oh, donc l' exécution maintenant ça revient au procureur de la République. voilà au hmm. parquet merci beaucoup. merci El Hadj Daouda ci jàngat bu am solo boobu bile 8h40 euh, jot na léegi léegi